dama am benn mbokk boo xam ni bokkuñu diine waaye nit ku ñuul la ko man bokk itam réew waaw waaye nit ku ñuul la ko man sama wëllëre itam mas na ko denc ba ñu teqali ko ci façon bu xaw metti te moo di ki sengoor jëkk a denc muy doomu Félix Éboué baayam ku am doole te tudde nañ ko plaas sax ca Paris bien que nit ku ñuul la yàlla àtte comme doom bu góor rekk la am ak Senghor ma gisam benn sët bu jigéen bu bokk ci daayira bi ma ne ko kii may naa la nga nekk mareenam waaw mu bëgg ci wallaay ndeysaan ba am ku ko bëgg ki ko bëgg jullit la te moom Senghor a ko doon denc ñu def sëy bi ñu teg ci fan yu néew mu seet ma ni ma daal dama dégg yu ñuy ñuuruxtu ma ne ko yu deme naan mu ni ma dafa mel ni dañu bëgg ma tuub ma ni ko yow ci xalaat mu ni ma bëgguma tuub ma ni ko jeex na loolu mufti amu ca pexe ilimaan amu ci pexe keneen amu ci pexe te dëggu nga ni bëgguloo tuub mu ni dëggu na ni bëgguma ma ni ko jeex na jeex na waaye gis nga loolu am na ñu ma ci indil histoire yu la kenn mënul nett mais damay laaj nit ki am xel ni tuub du sëy du tax ma tuub bañal ko boppam kooku moo ko bañal boppam il faut que ñu wax ko ni ko moom mooy responsable lu dundam bu fekkee bëggul tuub kay du tuub kooku rek mooy ni nga xam ne moo ci nekk parce que itam am na ñu mënul comprendre nit kuy tuub pour pour pour sëy am na ñu ko mënul comprendre man mii ca waaw ndax def naa ko ba tey bu ko defee man ma féeteek moom di ko wax ni ko rek bu fekkee rek bugguloo bu la ci kenn dugal maa ko wax te itam nag loolu ñëwati dal ma dal ma fii ci ndakaaru te loolu Paris la ma daloon ñëw dalati ma fii ci ndakaaru yàllaate koo xam ne sama cousine la ñoo bokk famille mais moom chrétienne la jëkkër ji koy bëgg musulman la te sama mbokk la tukulóor la mu ne ma duma parce que man sëy jaraluma tuub dëgg-dëgg ma ni ko tëddoog nga ci mu ne waaw ma ko bul laaj ilimaan bul laaj làbbi bul laaj keneen bu fekkee loolu rekk mooy sa bëgg-bëgg demal sa yoon parce que àdduna it noonu lañ koy defee man noonu laa gisee àdduna mu d'accord ceeg man waaye mujj na sax sëy baam waaye tuubul waaye yàlla def ci ay njaboot kooku fii ci Ndakaaru la ma dale bi ci des Abidjan la ma dale xale bu jigéen bi chrétienne la ivoirienne la xale bu góor bi musulman la sénégalais la waaye ñoom ñëpp ñu nga foofu ñu bëgg sëy Alaaji moo fa nekkal sëñ Babacar mu ni du def mukk mariage bi bi itam ni moom itam du def mariage bi mukk ma ni daal affaire la boo xam ni ni mu simple dafa il faut que ñu gis leen wax leen ni leen lu simple xam nga fu mu mujj mooy labbe bi def ñaanam alay jumat bu ya def ñaanam mu jeex tàkk ñu def mariage waaw parce que yu mel noonu il faut que nga dox ko wax ko loolu mënul ñàkk parce que jamono bi nit ñi da ngay gis ku nekk di jàngale diine di jàngale diine di jàngale diine boo ko ne luy sa métier du la ko wax te ku amul métier warul jàngale diine nag ku amul métier warul jangale diine dañu bayyi ñi am métier yu jangale diine mo gën parce que diine ku koy e, da fay fekk nga am sens su responsabilité te ku amul métier na, man gisuma ni war nga war nga jangale diine il faut que ñu encourager nit ñi ñu wut métier parce que sa parce que farata la tok nonu rek dans un continent où les gens ne travaillent pas il faut que nous encourager nit ñi ñu am métier parce que faratal faratal Mais dès loolu laa ci xam-xawma ci leneen ومفتاح الكنوز